alhamdulillah bismillahi arrahmani irrahim walhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain bokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñépp bala nuy sore ci wax ji ñu delloo nuyoo sunu wëlëre wi fi teew teewal fi kilifa ak réew mi muy excellence Mbay Mbay Ca Mbay Njaay ak délégation bi mu àndal di leen wax ne sant nanu bu baax te gërëm nañ leen bu baax ci seenub taxawaay di sàkku it ñu jotti lu su sunu nuyoo président Macky Sall ndax bisub si Abdou Khadir bi képp koo xam ne yëg nga ko tamu ñor la ah loon ci fas fasaale la ci kon nag ñor gum ko ñor moo tax yàble si na fi kii moo fi jëkk a dikk Abdul Karim Fofana dib taale bi ci kër gi di fi xarit di fi wëllëre waaye tey jii nga dikk fi yow itam teewal ko ci cérémonie bi Abdul Karim dikkoon na démb mook Souleymane Ndéné ñoom ñëpp xam nañ ni ci ñi koy jàppale lañ bokk ak Alioune Badara donte li ci waa kër gi la ñuy it dikkal nañ ko fi tey it noo ngi leen di dalal yéen ñi nga xam ne yéen dikk tey teewe si eh, ndaje mi nga xam ne si moom la ñuy tëjee liggéey bi nga xam ne si moom dañ doon def ren tey ñaan yàlla mu may nu nu defaat ko déwén defaat ko at yu baree baree bari te lépp lépp rek yàlla dinu dimbale dara ba a ñaaw lépp di rafet. te luñ ci yaakaar yaakaaral ko ci suñ bokki taalibe yaakaar ko ci suñ bokki jullit yi ak waa réew mi lépp suñ borom defal nu ko ehm, ma ñëw nag kon ci ñi nga xam ne ñooy suñ bokki bopp yi takk a nekk ci bopp bi di sunu kilifa sëriñ Mountakha Mbacké bu nu ko tuddee rek man nga wax ne tudd nga ñëpp ndax nag fii benn bopp la kenn mënu leen xar ñaar buñ tuddee sëñ Muntaxa rek amul kenn ku yaakaarati ne walla nga bëgg ñu le ak diw loolu moom moo fi mas di dox day loo xam ne dafa tàmbalee ca ci lu sori sun maam yi démb ya ba ci sëriñ Touba mi fi dikk indi xar baax doxe ko na ko ñu njëkk ña doon doxe ndax lool ndax nag loolu dafay dellu rek ci lislaam ji nga xam ne lu ngeen fi gis rek teraangay lislaam la ci ki ko fi indi mustaqay wala mu gont ngir àdduna wala ngir lenn lu dul jëmi suñ borom ak taxawal lislaam te dox ci doxloo ci ñi ko topp ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon doxe ànd ko ki sahaabam loolu moo indi woon Serigne Touba ci àdduna moom képpit moo ko mas a ñor lu ngeen fi gis rek lu ko san borom baaxe la lu ci soxla wut mën bëgg ko mënu koo jariñoo mu jox ko ñi ko mën a jariñoo ci njabootam te buñ nee njabootam rek jullit ñëpp ci lañ bokk kon nag noo ngi sëriñ sant sëriñ Muntaqa jàpp na ci bis bi ci anam yoo xam ne am na ci yooyu sax moo ko tegoo waaye nun njaboot gi wàcce nañ ko ko waaye lépp luy mën a yéwénal bis bi def na ko lépp lu nuy sagal def na ko xam nañ nag diggante digganteem ak sëriñ du Khadir digganteem ak sëñ siiru waaye digganteem ak mbooleem ñi mu bokkaloon sëriñ ba kon nag maa ngi koy sant ci biir cant googu waxtu yi dafa xat ñépp nañ ma jéggal ma dëxañ lépp ci biir ndax mënuñoo tudd kenn bàyyi kenn amul ku mag amul ndaw amul góor amul jigéen ñépp ci jàpp kenn seetaanuñu te loolu moo mas di am naka jëkk maa ngi santit ñi nga xam ne noo ak ñoom noo bokk ci réew mi yàlla def ñu nekkal lislaam di ko taxaw ci yeneeni penc waaye noo bokk diine ji te biñ bokkee diine ji it bunt yu bari ci diine ji ñoo ko bokk ci wàlluk tawxiid ci wàlluk fiq ci wàlluk jànginu alquran lépp lépp këri diine yi fi nekk yàlla da cee def tawféex ñu bokk ko ba tax na xëy na ci ngirum tasawuf te ngirum tasawuf it mel na ne jàngukaay yi nga xam ne si yu bari la ci biir yàlla daa defit tawféex ñoo bokk kuñ ci ku ñuy sukkandikoo ci ëpp ci limaam Ghazali limaam al-Jundi yaakaar naa ne mooy seen référence ci tasawuf ñépp a ko bokkule loolu nag tawféex la ju suñu borom defal euh, Sénégal ba tax na xëy naw ñàkk a bokk benn sëriñ waaye sëriñ boo gis rek mi ngi dàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofa nag amatul wuute mi ngi mel ne rek bu ñu dajee ca kaaba ga amatul doo xàmmee ti góor ñi ak jigéen ñi du too xàmmee itam ku weex ak ku ñuul loolu nag mooy lislaam mm, kon noo ngi sant ñëpp di leen gërëm bu baax di leen xamal ne yëg nañu sunu yitte ñëw nañu jàpp ci ñëw nañu bokk ko ak nun lépp loo ci xam ne nii sama borom dana nu ko ci baaxee noo ngi ñaan yàlla na ko yàlla booleek ñoom yéen ñi nga xam ne nag yéenay waa kër Serigne Abdou Khadr yéen nag sant nañ leen bu baax cant gi maa ngi koy tàmbalee ci njabootu boppam gi li ko dale ci Serigne Moustapha ba ci Serigne Bassirou neen ko baaxoo waxee rek dale ko ci soxna Momi ba ci soxna Aminta Lo ñépp kenn ku ci ne ni ma def boo gisoon Serigne Abdou Khadr mënoo koo def nu ko ëpp loo des ci man la dese waaye ñoom wàccoo nañu ak man nañ ma ñaanal nag seen barke bàyyi seen barke maam li ma war ci yéen yéene naa ko lool yàlla man loo ma ko ma def ko it ca nam gën a baaxe waaye dese luñ dara loolu rek laa koy wax tënk nañ ko te loolu yàgg naa ci yow sama digg ak ñoom euh, loolu ab lay mbay di wax lu ma béggee la kóolute gi ñu am ci man loolu ku ko am ci sa say bokk mënatoo mënatoo leen a fay maa ngi leen di ñaanal yàlla lépp luy seen bëgg fii ci àdduna ak àllaaxira xam naa lépp sam seen maam fàggul na leen ko waaye yàlla na ci yàlla na leen defal fan yu gudd àndal leen wér yaram yàlla na leen musal te musal njaboot gi topp ci ñoom di santit mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom di wut Serigne Touba jaare ci buntub Serigne Abdou te nekk ci seen ginnaaw amut lenn loo xam ne nii ëmbal naa ko euh, sama bopp te ëmbaluma ko ñépp ñoom itam nañ xam ne foofa waay man di nekk di fa yëngatu bu sant jotee man maa war a taxaw sant la bu gërëm jotee maa war a jóg gërëm la pay nag yàlla daa def sëriñtuwaa rek la ñëpp di dàkk te moom nag mën na ko maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp liggéey bu nu uh, nekk bu bu ma ko bu ma leen ko yëgalee kenn ku ci ne da ngay daal di wax ña nga àndal ñu taxaw ca ba ci ndigal li nga xam ne moom la sunu kilifa digal murit yépp jàpp naa ne liñ ci def bu ñu sañoon mu ëpp ko waaye nag dañuy tàmbali te bàyyiwunu fas yi ñu yéene feek liggéey baa ngi fi nu ànd ko sëriñ bi kon nag ngeen waaj bu ngeen déggaatee la leen digalit rek ngeen taxaw ci ba ci liggéey bi fekk noppiwul lu ci waay man di def rek na ko ciy def te xam ne nag bu fay jotee Serigne Touba leen di fay te képp kum kuñ mës a gis mu jëfal ko ba mu fay la ba ci say sët ba ci say sëtaat ba léegi noo koy gis ci ñoom loola nag sëriñ bi bàyyiwu ko ñi nga xam ne itam euh, mbokk lañu ci sëriñ bi te mbooloo nekk ci seen ginnaaw ak ñi nga xam ne ak taali bi moo leen bëreeg sëriñ bi ak kóllëre te ba tey mbooloo nekk ci seen ginnaaw ñoom it li may wax ci sama bokki bopp yi laay wax ci ñoom ñoom ñépp ku ci ne lépp loo xam ne dégg nga ko ci kër gi doon ak ku la ci soññi benn yoon rek la wax sëñ Sidi mii nga xam ne moom la sëriñ Modou um, doon joxoon joxoon kilifteefu euh, liggéey bi mu nekk ci jëwriñ loola man it ma ànd ak samay rakk yépp tegaat ko ci loxoom la yaakaar naa ñi ma ko boole loon waxal nañ ko seen bopp man bu ma waxoon ci ñoom sax xëy na mu mel ne kuy ràcc jëme ci sa xar kanam sa kanam waaye la ñiñ ko boolee doon ñoo ko waxal seen bopp loolu ñuy wax luñ ci xam maa leen ko gën a xam lewet gee kerse gi tabarkalla loolu soxlu sarut ñu ci ñu ciy sori waaye ñu xam ne tam ñeneen ñi tam kenn ku ci ne rek am nga ci wet goo jàpp te yaa ngi ci dox la nga ca war a doxee lii nag mooy màggal gi mooy liggéey kër gi ci loxoom la nekk te ci lañuy wax noo ngi koy sant di ko ñaanal bu baax duggoon na ci ñaan yooyu ma doon ñaan waaye ñi ma bokkal kër Sëriñ ñëpp maa si gërëm ko ndax li mu fiy def bu ko defutoon kenn ci ñoom kuñ ko ci santoon nga ñëw def ko biñ ko ko defee biñ ko ko santee mu ñëw def ko nañ ko bëggee ñëpp ko ameel cant ñëpp ko ameel gërëm loolu euh, lañ ci mënoon a wax euh, dolli ko ci ndax sëriñ Moustapha wax na leen kan mooy Sëriñ Abdou Khadre fàttali na leen ci moom lu bari man ak moom law kunta alxasan la kaana alxuseyn noonu lañ mel loolu nu yàlla dimbilee loolu loolu ñu yàlla dimbilee de maa ngi jéggulu sax waruñu misaale suñu bopp kooku waaye nag danoo bëgg a baax moo tax nag kon ku baax la ñuy tudd waaye noonu lañu ñu mel yàlla nu ko dimbilee sunu kilifa it fàggul nu ko euh, kon bu waxee te waxtu wi xat na bari na tomb yooyu jërul di dellu si ndax jataay Sëñ Abdou Khadir daawud weesu sëriñ bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaabi yu sàngam nee na wala mu tudd kenn ci gaa yu baax yi daawu ko nag e, wutal ab tarixa wala lenn ni sëriñ Touba doon doxee rek la waxee ndax sëriñ Touba waxoon naa leen ko fii wér du wane joxe na ko fii ku ku ne xam ne diggam ak Cheikh Ibrahima Fati wér du al wér du al Chazali la ko joxoon sëriñ Baara Ñang doomam ma nga ne sëriñ Abdourahman Ñang mi ngi ko joxoon du Tijaan mam la nekk fii di yore ko fi ba 1971 wala 72 la fi soog a jógee kon ni li ni ngeen gisee mu bindi ko ni ni la ko doon jëfee kon yaakaar naa yaatal ci sëriñ Tuubaa la dëpp kon nag lam waxoon ne woote yoruma tariixa dama fekk yoon way yónnent beeg saxaaba yi doon dund wañ doon dox mu ñaxe ma bay ko ba mu set ne leen yoon waa ngokk loolu mooy Serigne Touba kon nag ku am ko mel noonu te nun mbir ku la ca boole rek moom nga war a xool sëriñ Touba Serigne Abdou Khadir mësunu wan mukk jëmmam mësunu wan mukk boppam lim nu daan wax naka jëkk rek mooy Serigne bi référence am dëgg mooy Serigne Touba mooy ab peesewukaayam lu mu ca natt rek loola lay doxe kon nag yéen it bu ngeen bëggee li ngeen yaakaar ci sëñ Abdou ngeen am ko na ngeen ko bëggee sax leen ci lim bëggoon te bàyyee ko nag li ngeen ko dénk te nekk nekkal ko ci lim leen dénk na ngeen teg sëriñ Touba ci seen kanam bañ a leen ku am sëriñ Touba ñàkkoo dara waroo tiit waroo jaaxle ndax toppewuñu ko àdduna si te lim nu fi defal kawe na suñu njort kenn ku ci ne yëngu ba nga yëngu am nga ñoo ko yëngoo yëngoondool waaye wóor na na nga ca mel am na loolu la ci sëriñ bi jagleel kon nag lum yàgg-yàgg bu ko ci kenn jéem a fàtte te euh, njariñ nekk fii nga bëgg ca lool waaye xamoon nooy fooy jaare nag ba jariñoo njariñ li loolu itam kenn ku ci ne nañ xam ne doy na sëkk sëkk euh, ak doye di waaye ab jullit ak lottam mën naa bañ a yàgg ndax suñu borom ubbil na ko bunt bu yaatu mooy ñaan loola jaaxal rek boo xamu nooy jariñoo ñaanal yàlla mu teg la ci yoon wi ngay tax a jariñoo waaye mbir bara nga ko mën a jariñoo danga koy xam loolu euh, bokk na ci li nga xam ne moom lañ rek di leen ko fàttali nangeen ngeen ngoy bu baax ci Sëriñ Tuubaa na ngeen di bu leen di def lu ngeen dégg ci mbedd wala nit di ko wax mën maanaam nit gis la yaakaar li ci say poos mu lay wax loola neex di la jay waaye bu la jayet fa ñuy lijjanteel li nga doon def bañ lay jay kooku du ko fekke kon su boobaa bu kenn nax sa bopp bu kenn war sa bopp waru baaxul ndax tam sëriñ bi wax na ko lakin salaamatum min al xururi la amru rabbi asaabul umur yi bari na luy mën a war nit jihaat sax des na ci waru te gis nga ko xoone mi ngi tuur deretam te seytaane rekk ko gemb loolu day am yeneen yi ci des nag buñ ko waxul bu dul jihaad ji mu tudd itam waaw loolu la ko wa baadohum qad xurra bil jihaadi xam nga loolu kon day mel ne ku doon ku doon waru bu doon dal nit day mel ne ci luy dëppoog bànneexam bakkanam la ko war a mën a dale wala jaamu yàlla gu sedd waaye dem ci jàkkaarloo ko xam ne mën naa tuur sa bakkan mën naa jël sa bakkan yow nga mën a jël bakkanam te fekk ak woru la ci yow loolu nag dama cee tudd euh, baat boobu ndax li ko sëriñ bi wax ci ci ci Masaalikul naan waaye jaamu yàlla yépp lu ci ne mën na caa dale nit nañ koy moytu ba ci xasaayit yi nit ñiy jàng koo gis rek mu naan xasaayit xasaayit te ñu baree bari xamuñu lan mooy xasaayit ni sëriñ bi bi muy nekk ca Mauritanie xumaak fa la joxe digal ab kuréel boo xam ne bis bu xëy balaa jant soo ñu wàcc ñeenti kaamil ñeenti kaamil yooyee lam ci fas lépp luy jariñ mbooleem jullit ñi la te euh, boobee ba tey ba nim dikkee njaarim am foofu fukki at ak juróom benn ak 1927 la dikkoon fii ci Touba ba tey jii njaareem ji kaamil ba ma nga fay sax ñeenti kaamilam yooyu ba fii ci Touba ñeenti kaamilam yooyu mi ngi fiy sax ak barab bi njabootam gi fi nekk ak li ëpp ci magi taalib yi ko toppoon kon loolu euh, ndigalul sëriñ Touba la loo xam ne ñëpp luñ teg bët la luñ teg loxo la kenn du ko fa wàcc di jëfandikoo sa xelum bopp sa xelum bopp buñ la jubbantiwut seytaane mën na lay gidi mën na lay wommat te euh, sëriñ bi ci boppam njëkk loolu lépp dafa wax ne kullu muridin bi yaloosu fal yu dim tilaawatan li xayri zikirin xat rusim ndigalul sëriñ Tuubaa nag am naa yaakaar ci ne ku ku dib taalibeem doo ko dégg di wacc di jëfandikoo sa xelum bopp wàcc lu la leer naññ di def leneen kon nañ ci góor góorlu bu baax maa ngi ñi nga xam ne sëñ Abdou Khadir la ñu yaakaar may seen jëwriñ ñooñu maa ngi leen di wax nañuy moytu bu baax di ko laabir yit sama bépp mbokkum taalibe mu yaakaar sëriñ Tuubaa nañ xam ne sëriñ bi dafa fonk lu alxuraan xasaayid yooyu boo ferul yi mënoo jàng xasida te boo bu la sa say waajur di e, boo demee ba mat a dal amul kenn ko mas a gis ñu ñu bindal ko ak xasida naan ko dañ koy jàngal da dal alxuraan ngay wax dal alxuraan jooji sëriñ Tuuba dafa dikk yor njariñam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 yow mi ku ko indilit dana la jox ci boppam wàccuwaay boo xam ne te booba de am wàccuwaay ci Serigne Touba ñi ko yittewoo bari na koo xam ne àgg nga ci ñaari ñu bokk tur kii moom ak fuuf waaye wattuwut muy woolu ki wattu alxuraan ñu wooye ki ëppi at ba mu dikkee mu leen waxuma kii diw mu mag laay wax te ka mag fa moom mooy ko wattu alxuraan bi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 kon ñëpp jàng xasaayit sun sun njariñ ñun ñëpp lu nuy jariñ tey ak ëllëg mi ngi ci fii bu gàmm mosaan dikk sëñ Abdou Khadir li muy ubbee eh, ak gàmmoom mooy yab tànnoon na mag ñu sell yàbbal leen ci jàkk ja la ñuy def wàcce fa kaamili alxuraan ba bisu tey bi sëñ Lamine Diop mi ak magam ñoo koy taxaw sëñ Seex may sax ci mujj gi moom la daan taxawaloo ñuy jàng man mas nañu faa yab maag sëñ Moussa mii ba ñuy doog a ñibbisi loola ba tey ñu ngi ko def bu noppee nag ma ne ko euh, bu noppee ca njàngum alxuraan nag nu ñuy def ci li ci guddi gi mu ne xanaa farlu ci xasaayid yi kon jàngalu nañ waaye dangay ngay jàng alxuraan waaye nga jàngi xasaayid waaye bul ne nag sëriñ bi defal nañu ci lépp bu ci sëriñ bi defal waaye lépp te jaaroo fa sëñ bi digle it doo ci jot kon daal loolu maa ngi koy laabiri ñëpp ku ku yaakaar sëriñ bi daal lii lañ lay wax te lii ma lay wax képp koo xam ne mi ngi sama rakk nga. ju bokkal sëñ Abdou Khadre loolu la lay wax digal amu ci amuñ ci ak werante nanu góor góorlu bu baax e, bu bu nu soññee itam sant leen ci li weesu ci ndigal yi ngeen dégg di ko jëfe muy deme ne màggal gi ak du sëriñ bu mag bi diglee jëwriñ yi jottali leen ko la ngeen cay def soññi wuñu kenn kenn kon dañ laa bàyyi ak sa sago nga doxe ca nang ca mën a doxe te loolu mooy baaxub kër gi te loolu fasuñu ko yéene teggi mukk waaye li ci kanam it nu xam ne ba tey rek noo ngi dégloo fu sunu kilifa waxee amatuñ genn bëgg ginnaaw nag kër gi ci boppam it am nañu aw sas ci lislaam ndax nag tool bu mag day am boo xam ne day am jenn jëwriñ ñëpp maase di ci xëy see ko gont waaye boo xamee ne tool ba set na nag kenn ku ne war ngaa dem bàyyi sa toolu bopp loola nag kon kër Sëriñ Abdou Khadre gi nga xam ne mooy seen bunt ci Sëriñ Touba na ngeen xam ne kër boppam gi na ngeen xam ne euh, tabax bi mu dëkke woon 1976 ba mu jógee ci at gi la ko sancoon at yi yëpp noo ngi ci yëngatu am na it yeneen liggéey yoo xam ne fas nañ ko fee yéenee def muy loo xam ne rek dana gën a yaatal euh, njaboot gi rawatina ci waxtu yi nga xam ne mbooloo dafay daje bu leen fàtte itam kër gi nga xam ne si ma nga ca usine benn tali jàkka ja nekk fa dama waxoon ne mënuñoo yëngutu ci mbirum kër te jumaa ji nekk fi am lu ca des kon nag maa ngi digal ñépp ñu bàyyi ko xel bu nu génnee nawet bi jàmm incha allah danaa ko wax ak ñi ma ci war a waxal danañ ko jottile dana balaa boobu yi dana fekk ñu xam liñ bëgg a def lan la ak nan lay toll su boobaa maa ngi liin di wax lu ca waay man na ko def man fas yéene lu ma am def ko ci maag samay rek ak Mm, waa kër gi ñëpp kon nag du léegi waaye ñu teel koo bàyyi xel bu baax lu ci àgg rek luñ ci toll rek dañ ko xam waaye eh, nañ bàyyi xelit ne su boobaa loolu nañ ko jàppe ne mooy toolu mooy ngont mi xëy mi sëñ bee ko moom bu sëñ bi joxe digal it na ñëpp xam ne dañuy fas yéene xëy ci sëñ xëy ci xëyal xëyal ci sëriñ Touba gont gont ci toolu sëñ Abdou Khadre bi nga bu noppee ci sëñ Touba la jëm kon daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jéggalu nag ndax waxtu wi suñu borom soxla nanu ñuy jéem koo jooxi maa ngi sant rafetlu teewaay sëriñ Xaasim Mbàkke ak sëriñ Maamun Mbàkke moom sëriñ Fàllu sëriñ yi moom sëriñ Murtala moom ngeen déggoon muy wax sànq euh, la waaye mbokk yëpp rek teew nañ tey nag ñoo teew ci jataay bi ak mbooleem mbokk yi fi néew yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen ñaanal bu baax di sàkku ci yéen ñaan bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullah